Setsima TV l'actualité en temps réel dans la spontanéité et la rigueur Setsima TV xibaar yu te wóor

waaw suñu suñu turam nekk ci sant waaw maa ngi nuyu waa Dinaora bu baax a baax a baax a baax a baax waa Dinaora yow seen fay maa ngi nuyu bu baax a baax a baax a baax surtout waa Dinaora yow seen fay maa ngi nuyu biir bi yëpp pour ñu doon jiw waaw bu ñu sama mbokku baykat yi bu baax a baax a baax man maa ngi gis naa ne la bu baax a baax yaay yaay yaay yaay suñu baax a baax baaxul gànnaaw teel yaay yaay الحلال ويسلك أمر الحلال أمر الجنة بالفرقوة بالفرقوة مثل كلام الشيخ أحمد كلام بيت النورين ما يسلسل ما يسلسل بعد الكاك المكبرين ما هدا هدا هدا ما يسلسل هدا هدا برمكار سلام الدار ما يسلسل في الأمر ما يسلسل هدا هدا هدا هدا هدا هدا

mais vraiment dañoo fi ñu bëri ak suñu raadu wala wala wala seen bëggoon incha allah. mais bu ñu la laaj mooy islam physiquement moralement mentalement lan nga préparé combat bi parce que combat bi dañuy jóg te gis gis nga ko ñu entraîné entraînement bi ak combat waaw mais si ma ko nuyu di ko nuyu bu baax a baax a baax ñu ngi si xam ne xamal nañu bu baax a baax a baax a baax problème nag su benn côté intermédiation la am léegi lamb lamb affaire la bàyyi ñu may daxaar am milieu dañ may daxaar am expliqué gis naa ne dañ ñaanal rek bu suñu yore ko waa jàmm bi dafa tomb incha allah ñu bañ a def très bien ko def incha allah kan la yàlla fa yor ñoom yàlla fa yor ñoom dañ leen tuuti ñoom ñoom la daa ñëw loolu laa jógee xaw ma yàlla tax na loolu la sama ñaanal si waaw waaw sama bopp bi xale bi ñu sax bëgg na ko dara xale bu ndaw sax bëgg na tuuti dafa sori dafa am lu bëgg góor góor rek góor góor rek di ñaan naa yàlla si yàlla yëpp di jàmm si yàlla yàlla boo xam ne dañu sànni ba rafet sànni ba rafet benn xeex dina xuloo te isaab te di saa sa kër ndax ñu ci kër gi xam nga ni bu ñu wax suñu kër dafa gën nga wax ne laa fi laa fi laa fi te bu ñu doon ñu nii wala seen i wax seen i wax ak ñu leen daw ñu fi def yëpp bu fekkee daal ñu leen daw ñu fi nekk yëpp daw yëpp xam nañ ko ba yooyu bis troisième message am na taa donc maanaam commence pour une distance am na taa dañu ko jóg

a baax a dañuy sama mag sama xale bu baax a baax a baax a baax waaw ak sama ak bu saane maa ngi koy nuyu bu baax a baax ba ñu ñu ñëpp maa ngi nuyu ñëpp waaw kii nga lay fii waaw man gars yi daal amul seen fay gars yi moom laa def kii yàlla yàlla ñu baax yàlla waaw amul seen fay quoi incha allah suñu ko defee ñu lay suñu ko defee maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax dañuy jàpp si kaw gars yi dañuy kontaan ak yow ñu sëb sama yaay suñu ko defee maa ngi koy nuyu bu baax sama yaay Sadio amul frère sama yaay Awa amul frère suñu ko defee amul frère maa ngi nuyu ñëpp daal di nuyu Mara Séras bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Ousmane Sy Diagne ñu ngi lay suñu si xam nga rek ñu xam nga dégg nañu suñu ba ko seetaanee ba jaay Ousmane ñu doon ay bopp ak yu kii ak ay xale yoo xam ne ñu topp waaw nag bàyyi la ñu doon ay bopp biir dem si stade bi kii su ma kii la yàlla képp tax yàlla képp tax ñu jëm seen tubaab loolu kese la ñu naan waaw ak seen baax maa ngi nuyu nag si loolu si nag yàlla ko yàlla xale àjjana

question la am pour yow bu si nekk dañoo sa biir carrière nga amoon sa trois kaw booy booy wala bu ko daanul doon am si kaw daal doo daal si yow mu daal yeneen ñu woon xeexatoo foog laa ngay am question bi ñoo koy keroog loolu moom la saa yàlla la si yàlla la tuddee mais ñun waa li ñu war a def nañ ko def ñu bëri la ñuy def dañu bëri la ñuy def incha allah comme que ñaanal jàmm rek mu ñëw si jàmm amul loolu lu ma koy wax di ko ñaanal jàmm bu suuf sëkk sëkk sëkk ak barke gis daal loolu laa koy ñaanal ba at bi di suuf rek mën a ñoom kase tey jéem a combat bi Pokola moom Dóor est-ce que loolu diis na yow gis naa ko bi nga xamante ne nii foog nga diis ko kii nga ñëw am fu mu nekk. loolu waaw c'est normal moom moom mooy defoon bi ndax man soo ñëwee risque man maa gën a nekk si risque bi ñu taxawoon maanaam xëy na ma ko di dara de day kër nga koy wax ne loolu def naa ko def ko ci laam ma ne risque bi dina nekk ma ne am suufee ma ne loolu bee ma ne loolu bee ñu ne projet laay bee. bu ne ma taxawal ma taxaw bu ne ma demal ma dem loolu defe naa ñoom xam nga baax a baax loolu moom xamante ne benn boo daan def si àdduna si àdduna lañ ko xam ay xam nga maa bëgg ay xam maa ngi ñëw yàlla mel ni moom ñu ko xam damaa tax a bëgg ñoom dafa yàlla fa yor yàlla ñu yàlla leen ñëw te mënu leen ci sax mënu leen bu ma tax a bëgg ñu ne ko lan la ñu doon sax lan la ñu doon bu ñu ko defoon loolu moom foog naa benn tàngoor bu ma ci jëm. jërëjëf benn tàngoor bu ma ci jëm. bokkul rajo bokkul. gis gis bokkul. kon kàmm xam naa ci biir. sëñ bi nga jëlaatee. ki nga xam ne xam nga la wax. xam nga maanaam si yëf combat bi incha allah. xam nga maanaam si yëf combat bi. attan jël sama combat yomb na mais attan ka jafe jël sama combat yomb na mais attan sama ngor bi mooy jafe. adduna dafay tënkee bay jëm. yàlla suñu gaaw mooy yàlla yàlla soo xool mooy xool ne bu dee yàlla soo xool ne day amul ëpp laa ko ak kii tamit kii maa ngi ñëw xam nga suñ biir suñ ñoo xamante suñ biir xam nga yoo xam ne nii dañ koy bàyyi suñ biir ay ñax su ne la kii yëpp dem kër jiw dem kër Ama dem kër Amacem wax kër jiw wax. dañ bàyyi lu ñu waroon ne dañ baaxul dañ baaxul dañ baaxul ñoo ko baax ñoo ko xaar ñu ñu seen. bu ñu koy bu ñu koy yëngu suñ ko suñ ko. la ilaha illallah Muhammadu rasulullah mais ñun suñu fédération moom presse Paris Jokalante Paris Jokalante Ambulance ñoom ñoo ko doon xam ñu ngi suñu diggante mais dañu bàyyi suñu yëpp dëkk fii ak yëpp sopp ñu nekk seen jamono ñu nekk ak ñoom ñu xeex wax fii nii dañu waat yow war a jëm. loolu moom baax ba ñu ko am seen faal bi la ñu ñëw ñëpp ñu ñëw ñëpp ñu ñëw ñëpp ñu ñëpp.